ayca moy nonu amad mbégte jakar lo euh, tey nag nak ñong fi nga xamantene moy mooy Pikine seet si champion set ci ndaanaan set si kenn koo xamante ne kenn ko présenté ci lamb moy Alliance Baldé mom lañ set fasen seen waxtaan ak mom ci lu bare bare dama koy baye mu nuyoo génn bu ko defee ñu wël waxtaan bi Alliance ma ngi lay xiar waaw gannaaw baat onze billahi min shaytan rajim ñu sant yalla jullu ci yenen bi sant suñu ñaari wajur di ñaan senegal yalla na fi jamm yag di balu ñep ax di bal ñep ax di ñaanal ñi caabi fet ginnaaw yàlla na suñu borom génne leen di ñaanal ñi tëdd si lal hôpital yàlla na suñu borom fëgg seen bopp di ñaanal Sénégal jàmm yàgg fi di ñaanal suma président moo get yàlla defal ko feex waaw Alias ak koor gi nan ngay dundee li nga xamante ne mooy koor gi. waaw maa ngi koy dund comme ni ko gars yi dundee maa ngi woor maa ngi koy meññee comme dab parce que bu fekkee dañ ne la onze mois nga lekk yëpp benn weer rek ñu ne la wooral noo war nga muñ nga woor ko quoi ba mu jeex tàq. alaas gars yi nañ sa euh, sa woor lépp ay nelaw la. <laughs> waaw loolu moom am na moom moom sama woor lépp ay nelaw la tey moom li nga ma woo nii sax moo tax ma teel a génn mais 19h 18h laa doon génn. <laughs> Eh, loolu est-ce que am koor. ah mais comme comme woor dañ ne julleeg jàpp maa maa ngi julli maa ngi jàpp maa ngi def lépp. waaw. te laataa ñuy xuus ci li nga xamante ne mooy làmb dañuy ñëw ci ki nga xamante ne mooy sa frère moo gét euh, dégg nañ euh, moo def déclaration ne de euh, posé li nga xamante ne mooy candidature 2024 fan ngeen toll ci li nga xamante ne mooy liggéey waaw làmb askan bi ñu ngi ci liggéey bi ñu ànd ak suñu yaay Fatou Kebe ñu ngi si liggéey bi bu baax a baax te am nañ yaakaar te gëm nañ ne dina nekk président Sénégal parce que su fekkee si réew nga dëkk liggéey dëkk bi moo la yor sàccoo xaalisu kenn. taaloo dëkk bi xuloo wa xeexoo da ngaa ñëw pour dimbali réew mi pour sauver sa réew waaw kooku mun naa yor réew mi moom mun na yor réew loolu moom mooy ba Bamba Mouride la. Mhm. Ah, moo gën ah, bi mooy première ah, li nga xamante ne mooy participation am ne eh, de eh, déclaré li nga xamante ne mooy candidature 2024 est-ce que jël réew mi est-ce que dina yomb. non bañaa yomb xam nga ci kan dul yomb ki nga xam ne daa ñëw pour taxalee. xam nga ki nga xam ne daa ñëw pour lijjanti xaalis pour bokk wala dara non non mais kii dafa liggéey pour am fond pour am lum liggéeyee pour dimbali ay nit pour jàppale ay doomu réew mi boo xoolee États-Unis la ko njëkkee di fayal nit ay bourse di dimbali jumaay ak jaaxa yi kooku bu nee daa bëgg a yor réew mi dañ ko koy jox parce que mun na ko yor xam nga moo mënu yor réew mi kii sàcc xaalisu réew mi pour yor réew mi wala kii taar réew mi pour yor réew mi kooku mënul yor mais kii liggéey pour yor réew mi mun na ko yor 2024 ñëw na ba pare daanaka lu si des bëreetul est que yéen a def euh, porte à porte yi. waaw commencé guñ ko parce que Mogué daa war a ñëw après Korité soxna faat kebe tamit daa war a ñëw après Korité moom sax avant Korité lay ñëw parce que fii la war a Korité bu ñu ñëwee rek ñu dox si liggéey bi commencé liggéey bi nekk ci parce que loolu moo ñu ñor te ci la ñuy rey suñ bopp ñun ànd nañu ku ne mais bàyyi na ñëpp Mogué la ñuy àndal pour mu yor réew mi. lan nga gis ci ki nga xamante ne mooy Mogué te gisoo ko ci yeneen euh, leader yi. mooy wax dëgg. waaw moom lu mu la wax dëgg la. wax dëgg. waaw lu mu la wax ñeneen ñi. luñ la wax du dëgg. yenn saa da ngay wax ak nit sax mu ne la waxu politicien la. mais moom yoragul jikkoy politicien. déglu lu baax nag yoragul jikkoy politicien. yoragul yoragul jikkoy politicien. xaw ma nag ba xam après dina ko yor mais yoragu ko. dëgg la mhm. mais lépp loo xamante ne dig na dig na la ko wala mu dig ko ñi nga xamante ne ñoom ngay àndal ah, yaa ngi koy gis. lum la wax xëy dëgg la su la tey Sénégal laay fanaan si jàppale dina fanaan ci Sénégal. Euh, tey jii nii ah, réew mi lan lañ mën a xaar ci moom moom moo gën. muy changement lépp ci lépp nag dund gu yomb réew mu neex liggéey bu bari jeunes yi dootuñu xeex dootuñu xuloo ñëpp dañuy liggéey. Mhm. ayca euh, alliance day ñëw ci li nga xamante ne mooy làmb lan nga namm ci li nga xamante ne mooy làmb ji ak làmb yu mu tëjee nii. waaw làmb ji moom comme lu may wax rek li ma ci nam moom mooy génn ci li ma ne moom rek laa ci nam parce que li ma nekk métti na man xam naa ne métti na trop parce que tey boo demee ba làmb ñu la doon jàppale ñëpp daw day métti mais nag ñun ay jaam lañ mënuñoo may suñ bopp ay jàmbaar lañ dañ siy nekk saa su ne saa yu suñ borom waxee day neex rek day neex am nañ gëm-gëm bi rafet nañ njortu te am nañ yaakaar dafa mel bu mu déggee sa wax ñi nga xamante ne ah, dañ doon ànd ak yow am na ñoo xamante ne dañoo dañoo commencé rocceeku. non commencé ñu rocceeku kay rocceeku nañ. rocceeku nañ. Mhm. waaw. mais loolu ñu rocceeku est que ah, newul loo xamante ni motivation la war a nekk ci yow. waaw motiva motivation la war a nekk si man ba pare jàngat la war a nekk si man. ba pare incha allah dina ma dina ma xam dina tax ma xam lu baree baree baree bari. Mhm. am na mbër yoo xam ne ñoo doon ñoo nekk man a ñoom. mais daaw ma dem si ñoom ñoo doon ñëw si man ñoo doon ñëw suma néeg ñoo ma doon fréquenté ñoo doon jël sama alal barke alxuraan ñu ngi may dégg musuma dem ci néegu kenn ci ñoom ñu tey ñoo lay yóbbante ay wax mais lamb la duma ma ci duma du ma ci mere kenn ku ma si romb dama lay nuyu xam ne lamb la mais man maa ngi sant yàlla na maa ngi bëre waaw mooy commencement lamb boo xoolee tegale naa six victoire doo ko daanu kon su ma demee tey tegale deux défaites wala trois non du dara damay xam ne ñi ma doon daan gënuma leen ban defaluma la yàlla loo xam ne war na maa mun a may ay ndam defaluma ko tamit loo xam ne war na maa mun a xañ mais lamb la waaw bëre ak daanu la mais tey jii nii say potentiel adversaire euh, ci lamb ñan la alliance waaw ñu may wax ay yu bëree bëree bëri <laughs> ñu ngi may wax ay adversaires yu bëri ñu may wax Sey Jàmbaar. Sey ñu may wax Aliou Fatfat. Aliou ñu ngi may wax Bi Diop 95. Bi Diop ñu ngi may wax waay waay waay booy bi dëkk Grand Dakar. Kalla. Plateau. plateau waaw ah ñoo ngi lay proposé tamit plateau waaw mais làmb la rek bu ci suñu borom dogal ne boobu laa war a bëree damay jël bëri. nekkuma sax pour toog ay deux ans wala un wala toog ay sept mois du ma bëri non balaa saison bi tëj ma bëriwaat. balaa saison bi tëj ma bëriwaat incha allah mais di nga dem foo fi nga xamante ne war nga faa dem. non fi ma war a dem yëpp maa ngi fay dem. parce que toogaay jeex na quoi bu fekkee yow leer na la am na lu nekk ci yow. da ngay jéem a fexe loolu dañ. man xam naa ne man du alliance. leneen la. mais yàlla baax na yàlla ñu yàlla suturaal. gars yi dañoo bëgg gis alliance bu doon bëree contre dund. waaw boobu day ñëwaat déggoo lu ma boobu day ñëwaat démb dama toog ba ndogu ba pare ma jël éveñ fii dem seeti Ama bale mu jox ma ay conseils am solo dama gis nga suñu borom bu tëjee fii rek mun na ubbi fee mun na la mun na la ubbi leneen lu dàq làmb mun na la defal tamit ci làmb loo xam ne dangay am ñaari ndam yoo xam da ngay fàtte lépp góorul nekkaat ci jël alal ju bari jox mako barki sayyiduna Muhammad billaahi maa ngi koy ñaanal yalla defal ko tawfiq suma mag suma père suma xarit yalla defal ko tawfiq yalla defal ko sutura kum beurel bëreel daan la ci bari Seydunaa Muhammad tay bo xolé pap sar day dox lu am solo Pikine moy day bolé tàggalewul mais amna ño xam dañuy tagalé da dañuy wax fi wax fee gëmuñu seen bop mëno dëkk Pikine di and ak mbeur bu dëkk Géejawaay ko xamne du sa mbokk du sa dara mëno dëgg pigen di jima daw laax ci ginaaw mbeur bu dëkk Géejawaay way amna yo xamne mbeur ne ko def mbeur da ngay fiir ci sa bopp fi nga nekk na la ñor waaw man comme lu may wax rek benn mbeur la am pigen muy Ama balé sama yoon nekkul ci kenen pigen nak momu ñor ku ci bëre dama lay ñaanal pigen rek momu ñor mais benn mbeur la am. mais selon toi yo kan mo wara bëre ak euh, Modou Lo Ama balé ak Boy Ama bala boña kom Niang comme nee nañ Boy Niang moo war ak bu bëre ak Lo yalla nako daan bu Ama bala jël ko la dolli wa hmm. waaw loolu la. le ben la wa le ben la lépp Pikine la. Hmm. deug la nak ku am sa galé nga yobbu hmm. mais ñom ñep couleur Pikine mo leen ñor ñom ñep Pikine mo leen ñor. wa ay ci amna solo ñu anda tamit ci li nga xamantene mo actualité a ah, ciowal arafas comme lu may wax rek arafas champion la arafas Fass la. mais làmb da ngay toll foo xam ne munoo xàmmee munoo ràññee da ngay def nii rek da ngay talax talaxi rek mais aada war naa takk ñetti jabar góor yàlla no war na takk ñetti jabar góor yàlla la parce que tey takk jabar moo gën di caaxaan di foo di nekk si àll bi di taxawaalu am na soxna takkaat na soxna nañ ko bàyyi ak ay soxnaam ñaanal leen suñu borom defal leen tawfeex yàlla jubale leen ba seytaane bañ a dox seen diggante man de loolu laa koy ñaanal. te position bi mu fa taxawee. su fekkoon man maa fa ñett laay takk. yow bi waaw. <laughs> ah Alioune am nga soxna. man non man amagu ma <laughs> mais Aara li mu def nii ah, li mu li mu def nii est-ce que est-ce que yow duñ ko def. non li mu def nii dara nekku si. Aara dafa toll si tax soxna tax na ñaari soxna dara nekku si. waaw tax tax tax taxu soxna wàññiwul dara waaw c'est que gars yi nag dañuy jaawale coow coow coow li ak ak soxna yi coow li ak soxna yi wute na booy li ñuy coow ak ak ak soxna yi dafa wute waaw ñoom booy seen seen problème la ñuy coow muy affaire affaire moto la ñuy coow mais coow soxna si aada góor yàlla la war naa tax ay soxna loolu du dara billaahi waaye ñaari soxna yi da yok doole yow foo ne barki sëñ maamu doole ju bari la koy yokk parce que caaxaan day jeex taxawaalu day jeex day tal leneen lu dul taxawaalu aada boo xoolee pour mu daan nalaw guddi problème la. ah da ngay jékki-jékki seen ko ci mbedd Dakar yi fu ne waaw boo amee soxna nag da ngay toog doo dem fenn aada soxna yi doo ko defar mais yàqu de. mais yàqu ko non mm. Mm, parce que dina bàyyi lu bari. Mm. Mm-hmm. mais ñu si bëri euh, am génn nañ def sorti comme yenn mara yi nañ aada dafa jël euh, benn bayra boo xamante ne attanu ko en tant que mbër ndax léeg mbër dina jël yenn bayra yi nga xamante ni euh, du du après du fekk li nga xamante ni mooy njëriñ. mara yooyu dañuy sóob rek. xamuñu dara ñoom ne ay day jël bayre bayre boo xam loolu yàlla moo ko may du bayre kenn kenn bindu ko xanaa kon Wally Seck daa jël bayre nañu bàyyi loolu ñoom lu xew ñu jim cee sukkandiku dañuy fen rek xamuñu dara. Hmm. billaahi li ñuy wax ni maara yi ñuy wax ni eh, mbaay yow lan bi bi coupe d'Afrique yi nekkee coupe du nan lan lañ defoon ci max yi lañ dem. Hmm. su ah, loolu jeex na tey arafas moo xew ñoom ñëpp daw na ñëw si ku nekk naan bayre léegi nga dégg benn sëriñ bu ne la maa ko defar dañuy sóob xamuñu dara barki sëñ Fallou. kon maara xamuñu dara. maanaam ku xam dara. Hmm. du génn si YouTube du génn si télé du ut promo ñoom xamuñu dara. maanaam dañuy wut bës lañ bëgg rek moo tax ñuy wax ay daam bayra bu sangoo ay sangoo dara dañuy fenn xamuñu dara. lii motivation di leen ñaanal suñu borom defal leen tawféex yàlla defal leen sutura xam nga nekk tele bu mag di ñaanal suma président suma xarit moo gét l'international borom lamp askan wi. li lënd moon lépp leeral na ko yàlla na ko suñu borom defal tawféex ba mu nekk président Sénégal deux mille 2024 incha allah di ñaanal suma yaay suma xarit Fatou Kébé xam nga nekk jàmbaar nekk jàmbaar di liggéey bokk ci làmp askan wi ñu ngi lay nuyu di la ñaanal di ñaanal groupe bi yëpp ADS Sénégal lamp askan bi ñoom ñëpp ñu ngi leen ñaanal képp koo xam ne yaay yaay yaay nekk si àdduna rek nekk jeune bokk ci lamp askan bi rek ñu ngi lay ñaanal yàlla dafa la jàmm di la wax liggéey bi dina commencé après koor gi après Korité incha allah ne ci gaa yëpp ñëw xam nga waa Kër Massar bi. ama wa yembal bi wa wa maliko bun ben barak lepp ñu ngi leen di wo ci lamp askan bi muy moget president moget di wax suñu mama fatou fat kebe borom etats unis di la wax ñun labu nañ la bu baaxa baaxa baaxa baax waaw nga tek ci loxo di ñaanal suma grand charlie grand bi yalla suñu borom defal la tawfiq defal la sutura di ñaanal suma ben grand bu nek italie ñukay wax moustapha ak suma ben yaay bu nek italie ñukay wax fatima ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la jàmm Abdou Khadir Abdou Karim Fall Brésil ñu ngi lay ñaanal bu baax a baaxa a baax a yàlla defal la jàmm di ñaanal suma yaay Nafi mbay borom King Production Nafi maa lay ñaanal suma yaay suma xarit yàlla defal la tawfeex di ñaanal Ama Baldé suma mag suma père yàlla defal ko sutura ba combat yu muy sumb yëpp yàlla defal ko ci ndam di ñaanal suma frère Ibra Tall Belgique Ibra yàlla na suñu borom defal la jàmm defal la sutura mm, yàlla yokku la. di ñaanal wa café gi yépp gaay yi Baye Fall yi ma kenn suma boy ñépp ma leen ñaanal ñaanal Moussa Talibé Cheikh ñaanal na suma wa gal yépp maire bi yalla ko suñu borom bay yalla defal ko tawfiq di ñaanal Siré Saré xam nga sama benn jigen la bu nek Italie Siré ñu ngi lay béggee Ndey Xadi Saare xam nga ñu koy ziar ñu ngi koy béggee bu baax baax ñu koy ziar ñu koy waaw ñu dañ koy ziare bu baax mer na fi na fi waaw kon mu ngi nonu ñaanal nañu Adama moom mooy mooy jàpp si mooy jàpp si ndog yi xam nga yenn saa yu mbëri moom mooy loolu. donc defarul baaxul bu mu defarul baaxul ñu ngi koy siyaare ak waa gaale bi Jacob xam nga Badara Sané. xam nga ñoom maam Diédhiou ñoom waa kër gi yëpp Moussa Talibé Cheikh Gara Unusa waaw bëggee naa ñëpp Amadou Boudia Ndaare Elas xam nga ñoom Tos Mor Jaay Tar booy yi gars yi yëpp bàyyi ma kenn bëggee naa gars yëpp mafia Samba Diarra bi nag Samba jaara gars yi dégg nañ yóbbante bi Korité ba pare gars yëpp ñu ngi waaj ñu ñëw waaj incha allah yàlla def ci jàmm kontaan naa ñaanal naa Sénégal jàmm bëggee naa suma ndaanaan bi loo wax bëggee tii kay bëggee bëggee bëggee yokk kontaan rek xanaa yokk kontaan rek lii moo koy neex na alliance lañuy toog alliance tos aca mooy noonu am na solo nee naa leen champion lañ seet si Euh, ndaanaan muy Alliance Baldé a chaque fois bu duggee ci biir géew rek day jëmbal li nga xamante ne mooy fulla ak fayda euh, doon bëree di daan ay doomu jàmbur tey ji euh, bu bëree ñu daan ko loolu na ko sante ki nga xamante ne mooy suñu borom yàllaay maye te bu méttee xama rek nga daw buy neex doo ko fekkee waa di profité rek di nuyu ki nga xamante ni mooy Baye Jili Sanse Colobane maa ngi koy bu baax a baax nee naa kooku lu mu jaayul ci réew mu baaxul ku bëgg yére bu baax da ngay daw ci ki nga xamante ne mooy Baye Jili Sanse Colobane mu sansel la waaye di nuyu ki nga xamante ne mooy Ndeye Yacine moom rek la ñuy topp seen émission xaar leen ko ci beneen numéro ak beneen daanaan jaa ngeen